asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bi muy Serigne Ndily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal xaq di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak saadatu daarayni di ko sàkku ci yéen mbokk yi tey di ñëw dikkaat ak yéen ci gént nag moom it bokk na ci gént yi nga xam ne nit ñi danañ koy faral di ko laaj teen nag du dara du gas ci biir suuf si ngir génne li ñuy tudde asail matière moo xam ndox lay doon nga xam ne moo ci gën a siiw nag ci gas teen génnem ndox ndax moo nekkoon cosaan li waaye nag dees na gas ay ten ngir pétrole wala gaz naturel wala sax dees na gas teen ni ko lenn ci société di ko defee ngir segg xorom si jaxasoog suuf si wala sax kibrit ten nag ndox mi nga xam ne mooy bàyyi ci ndoxam taw mi nga xam ne bu tawee dugg ci biir suuf si ba egg lañ fuñ tuddee ci xazainul miyaa al jawfiya maanaam ndox moomu ne ci biir suuf si moom la ñuy tuddee nappe phréatique boo sax lu baree bare at yi mu sonal rawatina suñ gox bi mooy ndox mu bare mi ñaari at yi nga xam ne taw bi day bari léegi nag nappe min miyaaxul jaww fi ya nga xam ne moo ne ci biir ndox mi ci biir suuf si taw bi li muy gën a bari muy gën a màgg di gën a yéeg loolu mooy waral ndox mi di ball ci suuf si di génn bu dee teen nag ndox mi foofu lay bàyyi ko kon nag man nga teen des na ko gas ngir am ndox nga xam ne moo ci gën a siiw waaye des na ko gas ngir pétrole wala gaz tabi ay wala yeneen matières yi nga xam ne mi ngi ci biir suuf si te doomu aadama soxla ko ngir jariñoo ko gas teen nag bokk na ci lu mën a maye ab yool ñeel julit bi nga xam ne da koy def ngir dimbali doomu aadama yi nga xam ne yittewoo nañ ndox jamono yu njëkk yi nag booba teen moo amoon waaye fii ne teen ci teen ci mën naa wecci forage mën naa wecci forage kon nag lu mën a maye tuyaabala tuyaabala joo xam ne moom it day wéy ba faaw di feeg nit ñi ñu ngi ciy jariñoo yow sax bu génnoon àdduna mu mën laa fekk fa nga tëdd mu bokkoon ci li yonent bi sallallahu alayhi li moon ci ne njariñ loo xam ne nit ki da ko fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo moom bokk na ci jëf yi nga xam ne day sar ba bu dee ci gént nag moom it mën naa tegtale lu baree bari moo xam teen booy gas ngir ndox la wala teenu pétrole la wala teenu gaz la wala leneen bu fekkoon ne teen booy gas ngay gént di gas teen ba ndox mi maanaam ba ndox mi ball loolu ñaare dana tekki màndargam ijaaba dana tekki aajo ju fajo ba tey loolu it bokkut koo xam ne daa gént tambi cib ten gént tàbbi cib teen ba tey dañuy xool ba xam teen ba nga tàbbi ndax teen bu lëndëm la wala ndax teen bu raglu la wala ndax teen bu am ndox la ndax gént tàbbi cib ten bu bu lëndëm mën naa nekk kaso mën naa nekk kaso mën naa nekk dugg ci ay jafe-jafe yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel doone dama gént rek tab cib teen noonu faaw ñu xam ndax teen bu lëndëm la wala teen ba lu ca nekk ndax ndox ma ca nekk ndax na wala ndox mu leer la wala sax amul ndox yooyu yëpp dañ koy xam a dafa bokk ci liy déterminer gént yi bokk na ci gént ku faatu nekk ci teen bu lëndëm wala nga gént teen buy ballum ndox mu nax ndox mu nax buñ koy wax mooy ndox moo xam ne setut mooy ndox moo xam ne setut ñu bari nag dañuy jaawale ndox mu nax ak ndox moo xam ne ndoxum foos la maanaam bàyyi ko ci dem àll bokkul ak ndox moo xam ne ndox mu nax la nga xam ne dafa nax salte leneen salteel ko yooyu yëpp am na ay firin wala nga gént sax di tabax ab teen yooyu yëpp it am na nay taktal wala nga gént teen buy ball meew ndax gént moom noonu la la mën a dikkee wala ngay listixaar ab say gént ab teen bu def ndox wala moo xam kër goo dëkk wala kër gooy bëgg a dëkk gént fa teen buy ball wala sax palaas booy bëgg a sanc wala kër goo dëkk ba noppi nga fay gént gis ay teen yu lëndëm yu bari yooyu yëpp fii na am na ay tegtal wala nga gént am teen ci biir gént gi teen bi màbbu suulu wala bokk nga gént mbooloo mu wër ab teen yow nga bokk ci ñu jox la baag maanaam ñi xëccoo baak ba ñu jox la ko nga koy wëgg wala sax ngay gént nga gént am teenu pétrole yooyu yëpp danañ ci dikkaat ak yow incha allah ci deuxième partie bi bu ñu ko yàlla mayee ngir leeralal la ko jox la ci ay tegtal ak yoon ba nga man ci am ay takk-takk yoo xam ne boo ko gëntatee incha allah da nga xam si gént fan la jublu ñaare lan la bëgg a wax ni ma la koy waxee saa yu nekk rek gént moom dégg rek la laaj bu ko defee nag takk-takk yi lay jox ci ngay mën a jaare ba ci ag dégg man ci am ak ubbi ko kon mbokk mi maa lay fàttali ngay way di abonné ci chaîne bi ak di tasaare vidéo yi ndax bokk na ci li koy yëkkati ba suba ak jàmm incha allah